baat kenn mooy maam dafa sonnoon ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaata du ma di di ko waaw oui en segam ne na la mbokk ñëwoon démb salaamaaleykum di am mbégte nag di jataay ak yéen dafa mel ko bi léegi dama def si néegu Thiès parce que xam nga émission keroog bi ak Yacine Mbaye la woon muy doomu Thiès bu def lu rëy ci athlétisme di doom ci président Senghor entre guillemets su ma duggee Thiès sama xel dana dem ci ki nga xam ni euh, bu dul pendantam euh, ci wàllu performance nekk ko ci rayonnement rayonnement et au Sénégal et en Afrique parce que sama invité tey bi tamit dafa def sélection d'Afrique xam nga ci sport bi daf ci am tur yu nga xam ni discipline bi daf kay moom euh, bu ñuy waxtaanee basket féminin sama xel dafay dem ci Marie-Amélie Lopez parce que mooy la première capitaine d'une équipe féminine de basket sacrée euh, euh, championne d'Afrique sama invité bi ku tudd athlétisme dugg ci génération bu nga xam ne nee nañu dafa marqué l'athlétisme au Sénégal ñoom Marième Boye ñoom Julie Marie Gomis ñoom euh, euh, Khady Diop Marianne Mendoza Françoise Damado ak nag sama invité bi turam vous est familier ñi ma ko présenté ci biir kër gi avant émission bi ñëpp dañu sauté au plafond ni yàgg nañ ko dégg di Fatou si Fatou Cissokho si soxo fait tilt Fatou salaamaaleykum. maaleykum salaam sonal naa la parce que ça fait 40 ans gaañu di la laajte ma indi la tey ci plateau bi ma bàyyi la nga nuyu leen ba pare. Euh, jërëjëf Ablaye Diaw yow mi ma may tey opportunité ma nuyoo waat ak waa Sénégal euh, nuyoo waat ak sportif yi mais nuyook Sénégal rek d'une manière générale mhm. euh, comme ni nga ko waxee tout à l'heure da nga ni génnuloo cees waa dëgg la de parce que boo jaaree ci Yacine Mbaye jóge ci Yacine Mbaye egsi ci man mhm. effectivement génnaguloo Thiès wax man tamit comme Yacine Mbaye rek maa ngi doon commencé athlétisme ci Thiès maa ngi ko doore ci école maa ngi doon jànge ci benn euh, collège bu mhm. ñuy wax CG Escale xam nga bu njëkk ba CG lañ doon wax collège d'enseignement général bu Escale bu Thiès foofu la ma sama benn professeur éducation physique gisee ci performance yi may def ci cours yi mu ne ma yow mii de war ngaa mën a def athlétisme booba de Ablaye man sax xawma woon lan moo doon athlétisme. <laughs> waaw euh, ma réticente woon sax au départ. wante il a fallu que semaine de la jeunesse jot année boobu muy 1970. 70. ma gis euh, waa délégation Thiès bi ñëwoon semaine de la jeunesse. ñibbi Thiès ak ay médailles yu bëri. Mhm. ñu défilé ci mbedd Thiès yi romb sunu buntu kër. Mhm. laa ni ah man de bu subaa ma dem. ndax lii dama ko doon bañ ndax su ma ko doon nangu sax kon doon naa ñëw ci semaine de la jeunesse boobu. Mhm. mais comme yàlla def na semaine boobu passé na ma daal di dem defi athlétisme. donc nii laa ci duggee sama prof EPS boobu nag mi ngi tuddoon El Hadj Niang. Euh, année boobu donc 70 pratiquement li ma ci daw bariwul. mais quand mën naa wax ni. Euh, qualifié naa ci championnat du Sénégal scolaire. scolaire te booba euh, championnat aussi Sénégal lañ ko doon tuddee. mooy office du sport scolaire et universitaire. aussi ma ñëw booba cadette laa woon maa ngi am ay quinze ans yooyu. mu mhm. ñëw stade Demba Diop. fa mhm. laa jëkk a dawee pour la première fois. ma daw fa 60 mètres cadette ma raw. Mhm. raw ñi nga xam ne ñoom laa taxawaloon yépp waa dakaar waa Sénégal yëpp daal ma raw leen ñi nga xam ne ñoom laa nekkandoo woon ñu jox ma benn coupe coupe boobu nag photo bii mi ngi man dama dafa ma marqué ba léegi ndax mooy coupe bi ma njëkk am est-ce bi ma ñibbee Thiès duma ko fàtte le lendemain ma dem ci école ba sama directeur dugal ma ci classe yëpp man ak coupe bi hmm. ak samay résultat scolaire di ma wane ndeysaan mu nekk nag motivation pour ah man motivation bu de telle sorte que année bi ci topp muy 71 damaa ñëw rek daal di commencer tamit entraînement yi ndax boobu am naa motivation. si si ma il faut ma dem semaine de la jeunesse ndax raté woon naa ko 1970. wax nga dëgg. donc man dama dëkkoon tam ci quartier boo xam ni quartier sportif la. muy buntu dépôt derrière waaw waa gis ma daal di may yóbbu ci club Rail. daal di may dénk nag benn entraîneur bu ñuy wax Amadou Diarra. Diarra Amadou Diarra nag mën naa wax ni lu bëri moo ko def ci man. ci yow na ma formé na ma. du woon entraîneur rek parce que éducateur la woon aussi en même temps donc euh, ay am na ay valeurs yu bëri yoo xam ne def na ko ci man yoo xam ne ba léegi mhm. euh, regretté wu ma ko daal mi ngi ma marqué non passé du rail au au waaw léegi comme ni may waxee tamit gis nga 1971 boobu aussi bi ma defee semaine de la jeunesse euh, damaa ñibbi Thiès ak ñetti médaille d'or 100 mhm. mètres 200 mètres ak relais 4 fois cent oui donc euh, mën naa wax ni loolu tamit am na lu ma ci marqué il faut ma wax ko. parce que hmm. du woon man rek. oui oui euh, sport Thiès la woon en général. xam nga Thiès dafa nekkoon euh, ville sportive. anti chambre la woon. wax nga dëgg et discipline sportive yëpp. exact parce que euh, non seulement y avait le SNEPS e mais y avait les deux écoles normales. Hmm. yëpp ci même enceinte bi. exact ñëpp yi def sport. muy école normale des jeunes filles ak école normale bu garçon yi aussi. Hmm. sans compter également que ñooñu dañu contaminé woon. ba nga xam ni waa Thiès ñëpp doon def pratique sport donc bu ñu musaan ñëw semaine de la jeunesse toujours ay ay final Thiès Cap Vert la woon yaa ngi koy rappelé football ak fépp donc ñun athlétisme première journée athlétisme rek dañu am quatre doublés quatre doublés maa ngi koy rappelé le lendemain matin dañu génne journal bi ñu def ci première journée d' athlétisme quatre doublés des Thiessoises. est-ce que. j'ai bien dit des Thiessoises xëy na dinañ wax ni dama féministe. <laughs> am na ay góor yu rawoon mais man. te ñu wax ni dama féministe mais boobu moo ma ci marqué xam nga double yooyu lan la woon man ah. maa rawoon 100 mètres mhm. Fat Diarra jël deuxième au 100 mètres au 1500 mètres Yacine mbay raw ay Aïssatou Diagne Maro jël deuxième ñun ñëpp Thiès lañu dëkk au saut en longueur Ndey Mariam Sow nekkoon si Snep si Thiès raw Aminata Sall bi nga xam ngeen bokk ndar jël deuxième au saut en hauteur Seyna euh, Seynabou Cissé raw Aminta Gueye bi nga xam ne mooy sa soxna. waaw nekk deuxième. loolu moo doon quatre doublés yi. sans compter nag deuxième journée bi bi mu ñëwee. Thiessois yi ak Thiessoises yi dañu amaat yeneen trophée donc loolu mënu ko woon a mën a. ñàkk a wax daf ma marqué donc 1972 euh, ci laa dugg ci laa ci laa nekkoon euh, di def euh, sama brevet de fin d'études. Mm-hmm. donc aussi dafa nekk année boo xam ni. dama survoler le sprint au Sénégal. Mhm. journaliste yu bëri dañ ma dañ ma doon surnommer la reine du sprint. la reine du na ay coupures de journaux yu ma yore la reine du sprint rek lañ ciy bind. donc année boobu. ci laa jëkk a égalé record du Sénégal. à mhm. Thiès à Thiès. lors d' une 1972. 72 lors d' une rencontre Thiès Cap Vert. Mhm. waa Cap Vert ñu ñëwoon fekk si ñu année boobu. ñu def rencontre Thiès Cap Vert. boobu tamit macha allah Thiès waa ak Thiès waa dañoo rawoon. course yu bëri. voilà fa laa jëkk a égalé record du Sénégal 12-5 Jacqueline Blain moo ko yore woon. Jacqueline Blain Jacqueline Blain. année bi may continuer di continuer euh, semaine de la jeunesse ñëw ma amaat aussi ñaari médaille d'or ci même année bi. Mhm. année boobu aussi ma nekk pour la première fois championne du Sénégal en deux ans d'athlétisme. te j'étais encore junior. oui oui ma nekk championne du Sénégal maa ngi rappeler championnat boobu dañ ko raw ma raw. Euh, ki ma raw nekkoon championne bu mag muy euh, Marie Thérèse Diédhiou Vivi. waaw bi nekkoon ADPME. oui mu ñëw mu ne sama benn euh, kii Adrien Ndiaye ancien athlète la woon. Mhm. ni ko seen fii Thiès bi raw na ma man dama war a bàyyi daw sax. <laughs> bon parce que ñoom non c'est vrai ñoom ñi ngi nekkoon quand même en fin de carrière. donc année boobu aussi li ma ci wax mooy année boobu. c'était les Jeux olympiques de Munich. oui 1972 1972 oui. est que xam nga ni man la jëkk sélectionné pour Sénégal ci jigéen pour dem Jeux ah, Olympiques. ah ça je ne xamuloo ko la première malheureusement ah. jotuma gis journal bi mi ngi commencé yàqu mais dinaa ko defaraat. waaw dama xëy benn benn jour parce que dama daan ànd ak ay samay copines de classe. oui ñuy préparer sunu examen BFM parce que man malgré sport bi ma doon dem dama continuer woon samay étude normalement su ma yàqal dara. oui ñu xëy ñu dem jàngi ay cours particulier ñoo ko doon defandoo ensemble bay ñibbi. Mhm. ñu romb ci benn kiosque rek ñu gis ni. ñu daal di bind ni douze athlètes sénégalais dont Fatou Sissoko aux Jeux olympiques sama benn copine ni ma yow xoolal kii du yow ma ni ko ah man la kay ma ni ko man lii xaw ma sax nu mu demee. Mhm. ndekete bi ñu jogee euh, championnat nationaux année boobu fekk ma raw. waaw euh, fédération athlétisme bi nekkoon à l'époque daf ma sélectionné pour ma dem Jeux olympiques. oui Aminique. ñu bind ko nag ci dañ ko dañ ma sélectionné envoyé ko ministère des sports mu nekk nag pour ñoom événement historique. bi ñu ko bindee nag. fan yooyu nag journaliste dañ doon jaabante suñu kër à Thiès. Mhm. ñamaañ defoon na ci article. ñamaañ comme étant un événement historique. Oui. première femme. sénégalaise aux Jeux Olympiques. aux Jeux Olympiques. Alcino Lui Dacosta. ñëw na sunu kër Thiès. oui oui def na ci article. si si Tony Stephen. Tony Stephen ñëw na Thiès sunu kër def na ci article. wax nga dëgg keroog rek maa ngi leen di. waxtaanee ma continuer di entraîner ñëpp mm. kontaan sama entraîneur kontaan muy Amadou Diarra. si eh, si parce que maa ngi koy remercier au passage. di ko saluer au passage di ko ñaanal gudd fan. Mm-hmm. ndax moom itamit dafay jëm mag te yaram bi dafa xaw a. Euh, tawat daal mais yàlla baax na maa ngi koy ñaanal mu gën a gudd fan ndax li mu def ci man comme sama papa la une première fois yombul mhm. ça devait être la première fois mhm. ma préparé ko normalement entraîné def li ma war a def yëpp toog benn jour rek may dem examen BFM ma liiraat encore ci benn kiosque le voyage à Munich de Fatou Sissoko est compromis lu tax ah waaw loolu tamit question la boo xam ni beaucoup de gens se sont posé la question te liñ ma moo tax ñu ne directeur de sport époque boobu moo ni woon prévoir ñu woon jigéen mu dem Jeux olympiques. donc ba finalement kenn mujjul dem ba finalement benn jigéen mënul dem mu mujjul dem mais xam nga loolu mënoon na ma découragé. mais découragé wu ma. ci laa gën a bëgg athlétisme parce que dama ni. j' étais encore jeune te maa ngi soog a commencé te bëggoon naa athlétisme. benn jigéen demul. benn jigéen demul woon heureusement voilà benn jigéen demul mhm. man tam demu ma. sama entraîneur bi nga xamee ni mooy Amadou Diarra moo accompagné délégation bi ba mu eggee. ba France ñuy def préparation dafa bind sam papa lettre boo xam ni fédération moo ko signé woon. pour wax ni que bu ma découragé ndax xale laa te am mun naa dem yeneen. yeneen compétition effectivement. Ah année boobu nag laa réussir BFM ma daal di def concours d' entrée au SNEPS e ma réussir ma dugg SNEPS. E mhm. bi ma duggee SNEPS e aussi ci début bi. ci euh, ouverture bi Lamine Diack moo doon ministre des sports dafa amoon habitude di ñëw di def visite au CNEPS mhm. bi mu ñëwee visite mhm. man la njëkk a dajeel bi mu dajee man mu ne ma j'espère que découragé woo ma ne ko déedéet président découragé wu ma donc nii laa continuer athlétisme voilà. donc année boobu bi ma duggee CNEPS ci laa nag changé ma ñëw ci sa question ci laa changé nag jógee union sportive du rail dem TEC ndax boobu dafa amoon ay réglement yoo xam ne dañ ko tegoon ñu ne képp ku ñëw CNEPS teg ngay mm-hmm. teg ngay war a teg nga war a ñëw ndax teg moo nekkoon club bi nga xam ne dañ ko créé woon mm-hmm. pour SNEPS ak école normale yi nga xam ne ñoo alors finalement après Dakar bi nga ñëwee Dakar nag ak sa mm-hmm. audience ah écurie yu mag di la seenu parce que fii euh, à <laughs> l'époque ay Giac Jaraaf amoon nañu équipe bu athlétisme yu rëy ñu dégg la ASFO c'était la surprise waaw dëgg la Ablaye bi ñu déggee ni maa ngi ñëw ñu may affecté Dakar parce que boobu euh, commencé naa enseigner éducation physique. ñu af ñun ma nekk lycée Malick Sy un an rek fa def ñu affecté ma lycée Kennedy bi ma egsee lycée Kennedy donc comme gaañ yi ni nga ko waxee waa JIA taxaw duma ko fàtte Île de Prera def na lu nekk <laughs> waa Jaraaf club yu bëri. taxaw di ma def la cour. finalement ma rocceeku ndànk dem a AS fonctionnaire. pourquoi. parce que bon je me disais que nii euh, yooyu club yu mag la. te bu ñu toppee am na di ku ñëw ñu mag ñi ku ñëw rek dem ci club yi mag yi yeneen club yi duñu mën a dund daal ma dem ay fonctionnaire nag ñu def ma lépp ma tombé faak ñoom Aline Diagne Mboor mhm. ñoom Samba saar mhm. ñu jël ma teg ma ci kaw comme déjà maa ngi commencé woon di enseigner EPS voilà ñu jël ma sax def ma presque responsable ah très bien de telle sorte que même samay athlètes yi ma daan li lycée Kennedy ñoom laa doon yóbbu AS fonctionnaire wax nga dëgg ci athlètes yooyu ki ci gën a célèbre mooy Awa Dioum voilà ñëpp xam nañu Awa Dioum yëg naa sax ni Bona voilà dafa daan kontaan parce que il paraît que Bona dafa daan wax Fatou Cissokho da nga may liggéeyal parce que da nga jël basketteuses yi à l'école di leen defloo épreuve physique yu nga xamee ni amuñ ko au basket dëgg la loolu am na parce que bi nga xamee ni commencé naa enseigner EPS sama premier poste lycée Malick Sy la woon bu Thiès 74 75 oui dama ñëw rek ma commencé génne ay sportifs commencé génne ay athlètes dem championnat UHC ak samay athlètes ñu commencé am ay médailles. parmi lesquelles Kadia Diarisso. Kadia Diarisso Kennedy la waaw effectivement Kennedy donc déjà ci première année bi résultat yi ma def rek euh, Feu Ndiaye Tokyo dafa ñëw ni ma Fatou lii sa fait bon signe. sa première année nga jàngale rek nga am yi résultat bon signe la. Si, donc année bi ci topp ñu yóbbu ma Kennedy. Kennedy aussi ma dem def fa même liggéey bi. très bien même liggéey bi laa fi doon def de telle sorte que Kennedy euh, ñun dañu amoon suñu principe. ndax booba euh, sport scolaire buy démarrer dañuy démarrer athlétisme ba mu jeex ñu soog a def sport co mhm. mhm. donc bi ñuy démarrer ñu dañuy jël dañuy jël ñëpp man sama euh, kiiw personnel maa daan xool comme ñu ci bëri dama leen yore woon e gis gaaw nañu mhm. ma engagé leen athlétisme ci laa doon engagé Angèle Angèle Gomis moo gënoon gaaw fii 100 Fatim Diop engagé nañ ko daan lancé poids qui faisait du bien à l'ASFO Kadia nekk na championne du Sénégal cadette 150 mètres man mi maa ko doon engagé. moo taxoon basket la woon lycée te mi ngi doon basket. moo tax basket ba gaaw donc ci la ma Bonaventure Carvalho defee woon nii nag. parce que pour moom liggéey bi man maa ko ciy jàppale. Eh, très bien ndax qualité physique defe naa moo moo mooy priorité ci lépp loo xam ni. yaa ngi def alors euh, tout à l'heure euh, naq di woon na la bi nga demulee Jeux olympiques 72 parce que jigéen demul. Mhm. mais nag xam naa sa carrière la ci war gën a neex. sélectionné équipe d'Afrique en Allemagne à Düsseldorf c'était une c'était euh, c'était Afrique États-Unis ah. non qu'est-ce que c'était du woon Afrique États-Unis euh, c'était en parce que mën naa wax ni sax avant aussi nekk na ci année yi marqué. après ndax ci laa jëkk a dawal moins de 12 secondes au 100 mètres. man maay jigéenu Sénégal bi njëkk a daw mooy de 12 secondes. au 100 mètres ma def 11 9 c'était en 1974. belle performance donc année boobu ñu sélectionné ma aussi ma dem festival Québec festival. jeunesse francophone. oui Léopold Sédar Senghor moo ko initié woon ñu jëkk ko def festival Québec. Mm-hmm. kooku mooy jeu de la francophonie actuellement mooy tey voilà moo dem ba nekk jeu de la francophonie. oui oui foofu bi ma demee am naa fa médaille d'argent au mètres. ma ma battre fa record du Sénégal aussi au saut en longueur. Mhm. def fa 5 mètres 78 en longueur avant Marianne Mendoza ma yore woon record du en longueur bu Sénégal. donc euh, bi ñu ñibbisee ñu def championnat du Sénégal aussi ma survolé waat encore le sprint ma nekk meilleur athlète du Sénégal meilleur athlète national année boobu ci la ma Léopold Sédar Senghor joxe benn trophée. Mhm. trophée bi aussi mi ngi ci photo yi. ma brandir ko. loolu aussi nekk na anne bu ma marqué. bu la bu la marqué parce que nekk athlète de l' aussi c' est très important. ça ça donc euh, mille neuf ñuy dem daal di dem di dem 1977 aussi nekk na année bu ma marqué ndax dawal naa ci 11 secondes 7. pour 100 mètres c' était au stade Iba Mar c' était lors d' un meeting de l' indépendance avec euh, Chantal Rega jóge France ñëw. moom moo ma jiitu woon. Chantal xëcc ma man ma def 11 secondes 7. Chantal Rega année boobu aussi marqué woon na ma. nga nekk championne du Sénégal du 100 et combien pendant de très longues années pratiquement je peux dire que de 72 à 78 xëy na benn yoon wala ñaari yoon la ma tiitre bi rëcc. Mhm. ndaxte ku ne xam na ni carrière nekkul loo xam ne day yéeg rek. Mhm. toujours day am ay hauts ak ay bas. Ah, donc am na ci peut-être. deux titres yoo xam ni xaw na ma ci rëcc. xaw na la ci rëcc mais année yooyu yëpp may nekk championne du Sénégal championne du Sénégal. donc nekk première femme sénégalaise à descendre sous douze secondes aux cent mètres. vingt cinq secondes aux deux yooyu yëpp donc jaar naa ci. yore recordu Sénégal pendant longtemps 100 mètres 200 mètres saut en longueur ak les deux relais. 4 fois 100 ak 4 fois 400. 400 je peux même dire que 4 fois 400 bi ñoom Takko a battre record boobu <laughs> au championnat d'Afrique. seetaan naa la ba tey ci la ko ñoom Takko Diouf soog a seetaan naa la ba tey Fatou Cissokho euh, Ibamar alors la sélection d'Afrique. ak yéen sénégalaise. waaw sélection équipe d'Afrique bi aussi 77 la année boobu aussi j'étais en très grande forme. comme boobu aussi amul woon euh, championnat d'Afrique dañoo rassembler woon les meilleurs meilleurs euh, éléments yi sur la base des résultats que les gens envoyaient. waaw ci confédération yi. ci confédération bi ñu dal dajaloo def benn rassemblement à Tunis en Tunisie bi ñu demee foofu la ñu defee sélection bi ñu daw fa benn compétition ñu sélectionné. Mhm. donc bi ñu sélectionné. tey à Düsseldorf. à waaw bi Tunisie lañ njëkk a jaar à ñu sélectionné bi ñu sélectionné Tunisie ñu def foofu rassemblement équipe d'Afrique bi quatre Sénégalais bokk ci. donc parité la woon de ñaari góor ak ñaari jigéen. ñoo ñan la ñaari góor ñi Mansour Dia la woon feu Mansour Dia. bon je peux dire que Mansour Dia nekkoon na presque en fin de carrière mais hmm. dese woon na ay sànni tàccu mu ñëw mu qualifié <laughs> waaw ak euh, Momar Ndaw Grèce jigéen ñi man la awoon ak Mariam Boye ci relais Afrique 4 euh, raw daw également ci équipe d'Afrique en Allemagne en Allemagne la woon Usain Bolt loolu aussi bokk na ci vraiment li marqué ci sama carrière marqué sa carrière alors euh, sportive à vie parce que yaa ngi milité à la Fédération sénégalaise d'athlétisme hmm. et à la Confédération de de d'athlétisme euh, ci naka. waaw euh, sportif à vie ni nga ko waxee noonu la parce que man euh, sans transition sama carrière dafa jeex rek ma enchaîner. ak carrière entraîneur mu jeex ban ban année. benn benn championnat d'Afrique rek la am la ñu am chance su fekkee. waaw ñun suñu génération. pratiquement tu étais vice championne d'Afrique. Euh, non non non année boobu j'étais en fin de carrière. ah d'accord dem naa ba finalu 100 ah, d'accord mais aw ma woon euh, hmm. médaille. am lopin ñi nga médaille ci relais bi. ci relais 4 fois 100 parce que gis naa benn photo. yaa euh, ak nu mu tuddati ti euh, Gassama. waaw ak Mati Ndiaye. oui Mati était la plus jeune. donc euh, ñun ñoo ci daw Françoise waroon naa daw mais dafa amoon quelques incident yoo xam ne. finalement François daw Françoise dawul. ah donc euh, amoon nañu médaille au relais au relais 4 fois 100. Ah, donc bi ma terminé année boobu vu. résultat yi ma commencé woon def ci lycée yi ma doon jàngale mhm. lycée Malick Sy d'abord lycée Kennedy mhm. ensuite mhm. feu François Bopp may ma bourse ma dem INSEP institut national des sports bu Paris. waaw ma jàngi pour nekk entraîneur. ah très bien donc dama enchaîner directement. directement bi ma demee première année bi j'ai décroché le diplôme de troisième degré d'entraîneur de la fédération française d'athlétisme. oui. deuxième année bi ma def la formation des formateurs. oui ñu ma donc en tant que formateur. oui ma war a mën a former ay entraîneurs ak nekk conseiller sportif. ma ñibbi si Sénégal vers les années 82 ñu ma Thiès. conseil technique régional d'athlétisme. ma nekk première femme sénégalaise là également à occuper ces fonctions là toutes disciplines confondues du football du basket du handball athlétisme man maa ko jëkk nekk ci Sénégal. Ah, xaw naa ko fàtte. tu as aussi donné à l'Afrique tu as aussi encadré. pour l'Afrique une championne du monde Ami Mbacké Thiam. Ami Mbacké Thiam. Mhm. mi ngi mi ngi feeñe ci 1960 euh, 1992 coupe Elisabeth Diouf yi ñu doon def. waaw délégation Kaolack. yóbbu ko donc euh, fële euh, Ziguinchor la woon ñu dem mu raw fa 400 mètres. Mm. naan kii fu mu jóge kii fu <laughs> maa doon DTR bi. mais Lamine Camara moo doon prof EPS am moo ko génne woon ci classe am. si mais man maa doon conseiller Lamine Camara. maa ko doon jox ay conseil maa doon coordonné maa doon def lépp ba Ami Mbacké en un moment donné dafa bëggoon dem football féminin. Hmm? maa ci jàpp Ami Mbacké maa ci jàpp. joué naa bu mag pour mu bañ a dem football féminin parce que ki ko doon yóbbu ah. dañ ko ni kii xam naa xamoon ni na nekk championne du monde kenn gëmuñu woon mais le temps nous a donné raison. ma rencontré waat bien après. Ah ah. euh, l' entraîneur là qui qui football féminin. oui un certain Fofana. ñu daje stade euh, Léopold Sédar Senghor mu ne ma xàmmee nga ma ma ne ko déedéet mu ne ma man maa bëggoon yóbbu Ami Mbacké waaye tu as vu que le temps t'a donné raison ma ne ko voilà le raison <laughs> wax nga dëgg et puis foofu tam parce que bi ma ñëwee Dakar aussi Fatou Bintou Fall maa ko jëlee Tivaouane indi ko Ndakaaru je connais bien Fatou indi ko Jaraaf ba ñu fa nekkee 100 200 la doon def maa ko yóbbu 400 mètres ba mu def cinquante deux secondes quinze ci sama loxo. c'est ma fille papam sama xarita. jeex na. Euh, <laughs> papam sama xarita. Ari Fall. Ari Fall surtout Edouard Fall. moo ma ko dénk waaw Edouard Fall dañ may woo ba léegi papam daf may woo ba léegi. surtout Edouard Fall. donc euh, Fat Bintou yaayam laa woon. Mhm. maa ko yore ba ni mu jógee sama loxo. dem CIAD c'est ma fille dem CIAD. voilà am bu ma yor nga dem CIAD rek damay kontaan damay féex. parce que dëgg dañ koy wax athlète di nga ko yore ba mu yor benn certain niveau danga koy souhaiter mu dem foo xam ni. fa la war a demuloo fa merci fa lay a mën a progresser environnement bi day changer. looy def en Afrique a la Confédération. je je suis responsable du département technique et des compétitions de la Confédération africaine d'athlétisme donc foofu tam avant ma fay egg c'est parce que dama nekkoon d'abord officiel technique continental mhm. parce que bi ma nekkee di def stage en France dama def euh, en même temps stage officiel technique en France avec la Fédération française ma réussir en tant que juge arbitre fédéral loolu moo ma may aussi ma dugg CRD Dakar ma def fa stage officiel continental ma réussir ko en 2001. Mhm. ma def ay compétition sur le plan africain yoo xam ne boo demee yow da ngay compétition yi dangay ngay superviser même juge yi. Mhm. di xool ndax règlement bi respecté nañ ko di xool ndax compétition bi mu ngi jaar yoon ma def ko. yàlla def aussi en 2005 waa confédération proposé ma ma dem Paris def fa stage pour nekk officiel international ma dem ma réussir dans le monde entier. ils ont pris que 45 ma bokk ci 45. 45 yi yow xam nga alors que qui ont fait l'examen. loolu aussi yàlla def na ma def ci ay compétition de haut niveau. waaw ndax dem naa ci ay championnat du monde yoo xam ne officiel laa woon. Mhm. dem na ci Jeux olympiques bu Beijing loolu moom marqué na ma parce que ñu tere la nga dem Jeux olympiques en tant que athlète. yàlla def addina di dox ba nga dem nekk officiel international di jugé boobu 72 la woon 72 la woon Beijing di Beijing di 2008 voilà ngay jugé foofu ay compétition ay athlètes de très haut niveau ngay nekk ak ñoom ñuy def compétition nga leen di jugé loolu moo gën dem donc loolu defe naa ni aussi nekk na loo xam ni fat si marqué na ma dinaa la wax li ñu may wax man dañ wax bind livre mais war nga bind livre de fat waaw xëy na sax euh, ni émission bi demee la rek. waaye lu bëri mun naa ko ci yow. xam naa loolu mais dama dul yem foofu Ablaye parce que di ma may ma war la fa jeex. waaw waaw di ma may ma dugg tuuti ci sport femme sport. waaw parce que femme sport aussi au Sénégal joué naa ci rôle. waaw joué naa ci rôle ndaxte man dama nekkoon koo xam ni da dama doon bañ. bi may ñëw ci athlétisme man rek maa ci nekkoon comme jigéen difficile woon na mais dama doon bañ rek. di mhm. gravir ay échelons. Mhm. di des nag samay samay euh, formation ndax soo amul formation doo mën a xeex ak kenn. Mhm. di def samay formation fu góor ñi toog ma toog seen wet. waxoon naa leen ca début ba ni du du ci benn émission Fatou Cissokho ndax moo toll noonu nee naa tout à euh, li ñu may wax laa koy wax Fatou bindal livre parce que li nga wax nii yëpp bu nekkoon ci livre xale yi di ko nafar. dana nekk lu leen di jëriñ si jërëjëf jërëjëfati waaw jërëjëf merci donc di nga fi dellu si ah. jërëjëf Ablaye dinaa dellu si parce que man doyaluma yow sax doyaluma lu ma doyaluma. man xam naa ni li may liggéey confédération africaine d'athlétisme bëggoon naa ñu xam ko. non di nga fi dellu si compétition bu am sur le plan Afrique maa ngi je suis au cœur. de l'organisation technique. Fatou Cissokho te teewul au niveau de la fédération sénégalaise d'athlétisme ba léegi maay diriger aussi seen commission d'organisation meeting de Dakar yeeg championnat nationaux yeeg compétition yu yëpp man maa koy. maa koy organiser man ak samay euh, membre commission technique sportive et d'organisation. Fatou Cissokho laa leen indil tey Fatou Cissokho Fatou Cissokho Fatou Cissokho de Thiès à la Confédération africaine d'athlétisme ñu namandiku ko gëj gis ça fait 40 ans man avec moo tax tey jii ma ni du ma génn néegu Thiès après Yacine Mbaye te demuma ci kër Fatou Cissokho Fatou jërëjëf merci d'être venu. jërëjëf à la prochaine di nga dellu si. parce que yow émission bi jeexul dañ ko fi yemale. d'accord jërëjëf. merci njabootu ñëwoon démb ba beneen. maam dafa sonnoon ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaata du ma di fàtte di ko waaw segam ne na la